ay parti d'opposition parce que bu parti d'opposition yi amé doolé population yi dañuy yaakaar ci parti d'opposition yi pour ñu lijeenti leen seen mbir waxtaan ak parti d'opposition moo gën a yomb waxtaan ak population entière kon euh, su opposition amul rek population yi ñooy doon opposition donc loolu tam politiquement c'est une situation buñ ba war a bàyyi xel. Euh, comportement Amadou Ba depuis mu perte pouvoir bi. bon c'est normal dañ ko gagné en plus. Euh, il faut que mu xam ñan ñoo ànd ak moom il faut mu xam lan la mën a def et cetera il faut que mu xelaataat tout ça parce que moom li muy peser déjà xam na ko ah euh, peser woon na ko avant même dara di xew léegi bi mu génnee am na ñoo xam ne dinañ ànd ak moom am na ñoo xam ne duñu ànd ak moom donc il faut mu xam lan lay peser et cetera xelaataat pour mu mun a euh, déparaat. génn affaire yow lu jaadu la wala. waaw non xam nga moom bu fekkee ne léegi dafa bëgg a demal boppam amal boppam cëggal guyam dootul mën a nekk APR il faut mu créer partem parce que APR président Macky Sall mooy président bi donc c'est normal ko moom bu fekkee ne dafa bëgg am autonomie mu génn APR pour mun a am autonomie nekk ne mooy doon chef mooy décider mais bu nekkee APR chefu APR mooy décider. entreprise de presse yu fay impôt. dañ war a fay impôt impôt moom dañ ko war a fay li ci nekk mooy état ci boppam moo defuloon liggéeyam parce que tey ji boo xoolee nit ki toog fayul impôt. mu nekk jafe-jafe ñu ñëw jooytu nga baal leen benn yoon ñu defaat ko nga baalaat leen ñu defaat ko donc y a un problème mooy ne état moo def loon liggéeyam su état deful liggéeyam nag ba affaire bi dajaloo ba nii état ñëw ne léegi dañ koy jaarale yoon ne ñëpp fay impôt mais buñ buñ tëj entreprise yi parce que bu entreprise bi tëjee état dootul jotati xaalis mais bu entreprise bi tijjee di liggéey di gagné dara di fay dara par ndànk-ndànk loolu baax na parce que mooy tax. liggéey yi continuer mais en même temps que li ñu war a fay ñu fay ko parce que tamit bu fekkee da nga war a jox nit ki cent franc ne ko man kat trente franc yi dindi naa ko état ko moom. ba pare te joxoo ko état tam loolu tam lu wax dëgg yàlla yoon mayew ko. bugaan yi jub daal nerang yi jub. bugaan gi dani euh, comportement si am en tant que opposant. waaw moom opposant la c' est normal opposant la c' est normal que muy kaas chaque jour loolu moom. li mu wax rek ne dañ ne ko sunko war nga leer ak 86 mois yi am ci réew mi wa parce que Sonko actuellement moy chef du gouvernement gouvernement bi ñoo yore mbirum koor yek yi nga xamné ñoy liggéey di xol vérifier wa léral bi kay dañ wara def enquête yi wax nañ né enquête amna amna bon malheureusement amna yo xam dañ ko amnistier donc tuñ ko xol lolé problème bi mais gouvernement mo wara mo wara euh a ministre de l'intérieur sous la direction du président que ne ko xool affaire yi ministre de la justice etc. ministre des forces armées yooyu mais bu faites ay fait yu ñu Le la tam loolu amul parce que mënuñ ko. li li ma euh, jeexalee en tant que président national des euh, de l'association des consommateurs du Sénégal est ce que le Sénégal mën nañ am souveraineté alimentaire. waaw waaw am nañ ko ci soble bi. soble géré wuñ ko. Hmm. comprendre nga li ñu produire ci soble rek. non dama lay joxe exemple quoi pour nga comprendre. li ñuy produire ci soble moo ëpp li ñuy produir ci li ñuy laaj ci soble li ñuy consommer ci soble hmm. mais ñàkk organisation tax na dañuy importer soble. ceeb ak diwlin. ceeb ak diwlin tam mën nañ cee am kii autosuffisance alimentaire. sucre yooyu yëpp sucre ak yooyu yëpp mais <laughs> liggéey lay laaj mais gars yi war a def liggéey bi ñoo du liggéey. Mm. mais loolu yëpp mun nañ ci am autosuffisance alimentaire ci rapidement. est-ce que am na euh, wutee ci l'actuel ministre de l'agriculture. Mm-hmm. mu fi nekkoon ci par rapport ak. souveraineté alimentaire yàgg nañ ko fi dégg nañ yem suñuy mbiru bopp. que loolu vraiment yàq nga dana. ah mais day changement bu rëy de. day laaj changement bu rëy changement comportement changement yu bari lay laaj. parce que su fekkee ne yow da ngaa nekk baykat amoon moyen pour bay. ba pare nga ne kenn du bay sa tool yaa ko war a bay te yow amoo moyen te état jox la moyen tool ba dafay nekk rek kenn du ko mun a bay donc il faut que état génne moyen jox ko baykat yi ñu bay wala baykat yi nangu ay privé ñëw liggéey ak ñoom ñu bokk combino liggéey tool yi sinon du sotti parce que tool yi moom foo ñu bay ko mais agriculture pour dund kese euh, du du du matal li nga xam ne moom la parce que li nga ciy dindi pour ñeneen dundee ko day tuuti

booy xool élection yi passé par exemple ñun bi ñu defee sondage gis nañ ne cinquante cinq virgule un pour cent ñi voté seen jàng rombul primaire kon problème sérieux am na ku jàngut doo tari ñoom jànguñ gauche jànguñ droit maanaam jànguñ arxuraan jànguñ euh, tubaab jànguñ jàng mu tax ñu mun a liggéey amuñ métier amuñ métier donc am yow ban liggéey nga leen di jox ko amul métier ku am métier mun na la bon man maçon nga jox ma liggéey maçon kii ne man soudeur laa nga jox ma liggéey soudeur kii ne man mun naa lii nga jox ko mais koo xam ne jàngul gauche jàngul amul kii te ñooñu dañoo bari lool lool lool lool fu ni xale góor yi nga xam ne ñoo am moins de moins de vingt cinq ans yëpp boo doon xool ñi nga xam ne ñoo ci am métier wala ñi nga xam ne jàng nañ lu mun a liggéey bariwul bariwul te ñoo ñëpp dañ taxaw war a am liggéey donc loolu problème sérieux la boo xoolee njàng mi dafa dellu ginnaaw carrément. waaw njàng mi dafa dellu ginnaaw carrément xale yi góor yeeg yi jigéen yi nga xam ne eh, eh, dem nañ université bareetuñ ñi nga xam ne ñu nga université sax di jàng normal bareetuñ donc kon il faut ñu xoolaat mbirum éducation bi maanaam njàng mi ak yar xale yi. waxtu wi ñu tënkoon maa yow jeex na sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy ne daal réew mi mun nañ ko defar mais ku nekk lañ la sant ca fa nga nekk na ko def suñ ko defee rek réew mi dox.